ngir yombalal len ngeen mën di jot information bu wér te wóor ci anam yu mu gën a gaawee loolu tax na Sénégal Actu gën a joyantiwaat application bi di Sénégal Actu ngeen mën ko télécharger si Google Play wala Play Store rek xibaar dootu la rawati li nga bokk si ñu koy njëkk a am mën a bouger ak moom en toute liberté ndax rek mooy application bu lay informer lu jëm ci wàllum économique politique santé culture sport people maanaam Dal, bàyyiwul dara application bi télécharger ko daal mooy lu wóor.

Euh, placé na pour ñu si euh, ñoo fi na ci ki nga xamanteni mom qui euh, dit Pape Diouf ancien président Marseille ak mom ci lu bari jaaroon ak mom tamit fu bari muy kan Tamsir fay tay kër gi di naan ay jamono consul général bu Marseille Tamsir ñu ngi lay nuyu la dala jam Sénégal Actu. C'est Seydina ma lay la di la sant di nuyu Euh, di la gërëm ci micro bi ma jox pour mu mën a wax ci suñu illustre parents yi nga xam ne gën nañ ci àdduna mooy hmm. suñu papa El Hadji Golbel Diagne nga xam ne képp koo xam ne nekk nga ci Sénégal xam nga ko hmm. rafetlu woon nga nekkinam ci réew mi hmm. euh, suñu génération ak ñu mag yëpp c'était un homme de culture un homme de paix un homme de concorde sociale un homme bu nga xamante ne il ne ménage aucun effort pour que réew mi am jàmm ndar gu mu nekk bëggoon ndar. Hmm. bëgg lu mu bëggoon ci àdduna ndar moo ko gënaloon. dëgg la koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana. Hmm. Euh, fu mu jëm gënal ko fu mu jógee. amiin allahumma euh, Pape Pape Pape Diouf aussi sama xarit sama mag. Hmm. sama doyen ba nga xamante ne nit ku baax la woon. yàlla daf ma boole woon ak moom. Euh, ba ma ñëwee Marseille, mu jël ma. Hmm. uufal ma boppam jàppal ma boppam euh, di ma conseillé. Hmm. Euh, ci lu ñuy dugg mu dugg ci bëgg Sénégal. Hmm. bëgg Sénégal parce que Pape Diouf nit ñi dañu xam ñu bëri xamuñu mais il avait une affection toute particulière pour le Sénégal bien que. il est resté longtemps en France. et anecdote bu may joxe rek mooy bu nga xamante ne dañoo ko jox Légion d'honneur François Hollande war ko décoré Légion d'honneur. il est venu dafa ñëw consulat ba. Hmm. mu ne ma consul euh, dama bëgg nga ñëw ñu ànd ci man ak man ak yow ñu ànd fële jëli légion d'honneur bi man ne ko ah doyen. Hmm. te nga dem ak njaboot gi rek mu ne ma non foog nga ñëw parce que yow yaay représenté état du Sénégal. Hmm. te man ak Sénégal donc euh, cër yiñ ma jox ni tey. nit Sénégal man lañ ko jox mais Sénégal lañ ko jox. dëgg la donc te man ma doomu Sénégal fu may nekk ci Sénégal fu ñëpp fu ma nit ñi di xoolee. Hmm. doomu Sénégal la maanaam mu ne ma loolu tax dama bëgg. Hmm. looy def nga bàyyi ko ñu ànd mën na ko doyen lu ma amoon lu may def sax dama koy bàyyi. amul sax lu may def amul dara loo xam ne. Hmm. mun naa ko def ba mu gën a rëy lii ngay def. dëgg la parce que lii nga def euh, ëpp na dayoo maanaam ko. dañu noonu la ñu def man ak vice consul euh, Antoine Mendy ma koy nuyu au passage. Mm. ñu ànd ak moom ànd ak moom ak famille am ñu décorer ko keroog jox ko les honneurs devant toute la nation française mu nekk une fierté nekk un homme humble. Mm-hmm. une humilité légendaire man mosuma gis ku mel ni Pape Diouf parce que. Pape Diouf euh, nit ñi euh, peut-être ñu bari danañ koy gis ni mais Pape Diouf képp xam na gëdd gu mu amoon Europe France. Hmm. ñëpp respecté ko. Marseille waxi noppi. ku demoon Massi rek di nga xam Pape Diouf la toll. Mhm. France yëpp nit ñi respecté ko. muy nekk un homme de culture boo xamante ne euh, daf ñu doon rendre fier j'ai dit saa ku gëmoon boppam ku gëmoon boppam ma ne daf ñu doon rendre gëm boppam. Mhm. gëm fa fa taxoon ba ñun ñi nga xam ne ñu ay jeunes la ñu woon. gëm der bu nit ku ñuul la tey bu nit ku ñuul suñu bopp bu ñu yëkkatee der nit ku ñuul ca France ginnaaw yàlla Pape Diouf moo tax. Oh, France parce que France ku nekk France xam nga nan la bëgguma nan la nit ñi nit

dëkk yi africain yi nekkoon foofu yëpp ñu bokkoon ci fat yi dañ doon wax gis nga Pape Diouf Pape Diouf Pape vraiment. Mm. donc mu nekkoon fierté ci football bi aussi mu nekk premier nit ñuul bu nga xam ne nekk na président. club football. Mm. nekk ko xamante ne nit ku ñu respecté la bëgg réew mi nekk doom ba pare Marseille aussi mu fa doon def lu baax. ci mm-hmm. jàppale nit ñi lu fu Sénégal xewle foofu yow yow duma dama bàyyi ma fen parce que foofu. zone yooyu nga dëkk. dëgg la fu Sénégal xewle ne pare ne ko maa nga ñàkk ko pare ne Pape Diouf ñëw. Mhm. am lu mu ci def participer si malgré son emploi du temps très chargé. Mhm. donc muy nit ku baax man moom si sama bopp man dama ñàkk sama mag. Mhm. ñàkk sama xarit ñàkk sama nijaay ñàkk sama lépp. parce que sama confident la woon sama nit la woon. loo xam ne dama ci doon dugg ci àdduna dama ci doon wax ak moom. mu jàppal ma boppam bëggal ma boppam. Mm. ba gis nga péripéties yi ma am Marseille sax gis nga position yi mu mm. xam nga mu nekk nit ku baax nit ku dëggu. dëgg la xam ne nag mm, dara jaralu ko wax loo xam ne ay waxu caaxaan. dëgg lay wax. Euh, voilà muy nit daal koo xam ne mun nañu wax ci moom fii ak suba. dëgg la voilà ñuy profité jaal président Macky Sall d' abord. nga xam ne mooy président Sénégal yëpp. ñu jaale ko ci disparition de ce touriste ci Sénégal. bu nga xam ne Sénégal jóge na ci. ci jaal ko wa Afrique yëpp jaal ko Sénégal ci yëpp hmm. jaal ko wa Ndar jaal ko famille ay doomam yi nga xam ne ñoo des hmm. ak ay soxnaam ñaanal ko yàlla yàlla xare ko àjjana hmm. euh, fu mu jëm gënal ko fu mu fu mu fu mu jóge mais daal jàppal ne ñàkk nañ un très grand monsieur Sénégal ñàkk nit ku mag a mag a mag a nit ku baax nit ku yàlla dimbale te dimbal googu yàlla joxoon ko mu ci doon dimbal ay doomi aadama mm. yàlla na ko yàlla xare jana mm. léegi nan nga yaakaar léegi sénégalais yi nekk Marseille wala sax Marseille en général nag nan naka la Marseille dundee sans Pape Diouf waa xam nga Marseille moom Pape Diouf ak Marseille fusion la woon mm. c'est-à-dire Pape Diouf ak Marseille benn la Marseille mooy Pape Diouf Pape Diouf mooy Marseille donc euh, sénégalais yi euh, fa nekkoon amoon nañ habitude Pape Diouf ci lu ñuy def Pape

Pape Diouf xamul luy alcool wax na ko ñë waxati ko Pape Diouf nit ku yàlla mayoon la nit ku gëmum diine la ba ba ñoo ko sax ba ni tey bu bu du fi jógee woon tey tombam nañ fa def nañ ko fa tegal ballon ak ak kaamin alxuraan donc nit bu nit waxee loolu rek tey war nañoo mën a jàngat ci moom lu bari encore une fois sénégalais yi ñuy bàyyi di wax loo xamante ne wóoru leen di bàyyi di juger nit boo xamante ni xamuñu ko Pape Diouf tant jege woo ko doo xam mooy kan nit ku yàlla mayoon la nit ku yàlla yëkkati woon ca kaw. waaw mais Seydina xam nga Pape Diouf moom. Hmm. Pape Diouf xam nga set nit ñi moom Sénégal dañu dañu àdduna bi moom mel noonu léegi. nit ñi hmm. dañuy wax ci nit ñi rek. Hmm. mais yàlla moo xam ku nekk ak sa diggante ak yàlla. man de Pape Diouf li ma xam ci moom loolu laay wax am ma dara lu may inventé. li may wax ci moom la àdduna bi. loolu la loolu la wax ci li nga wax loolu ñëpp wax. dañ da nga ñëw rek lu nit wax xam ne Mm. mais nit ñu baax ñi ci réew mi yëpp loolu la ñuy seede benn bi lañ am ci Pape Diouf nit ku baax la. dëgg la lu baax lu leer. gëm yàlla di defal nit ñi lu baax. Mm. seq ak nit ñi jàmm ak humilité parce que fu mu yeggoon ci àdduna. Mm-hmm. ci turam ci maqaamam su ko neexoon mu def neen bu doon tubaab la la balaa ngaa jot ci moom balaa nga jot ci moom jot di nga di nga daw di nga def lu set wicc doo ko jot ci moom. voilà voilà mais Pape Diouf su la neexee nga gis ko nu la neexee. Mm. problème boo am nga wax ko ko mën na ci lim ci man mu def ko ci. nit ku baax la woon yàlla na ko yàlla xare àjjana. jërëjëf amiin Marseille nag dinañ Marseille nag dinañu dinañ jooy seen doom. Hmm. mais yàlla dina leen yàlla leen yàlla may force boo xam ne. Hmm. dinañ ko mën a antan naqar gi. comme hmm. ñun ñi ñëpp ñi nga xam ne ay orphelin la Pape Diouf lañ. parce que suñu xarit la woon suñu nijaay la woon. suñu mag la woon suñu lépp la woon. est-ce que est-ce que tey euh, monsieur directeur général euh, yaakaar nga ni tey bu jamono bu ñu demee ba yàlla tegg ñu natt bi ñu euh, dal ñu muy feebar bi nga xamante ne moom mooy coronavirus bi. yaakaar nga tey mën nañoo jël bés rendre ko ay hommage yoo xamante ni muy national wala international yoo xamante ne bés bi ñu dajeel euh, dajeel ak Pape Diouf parce que mérité na ko quand même. loolu loolu lu war a nekk la loolu lu war a mën nekk la. parce que mm. gëm naa ne nag Pape Diouf dimension bu mu amoon. Mm. Euh, hommage ñu rendre ko hommage pour moi c'est minimum. Mm. waaw loolu sama ngëm-ngëm la. te yaakaar naa ne aussi. su nekkuloon situation yi mbir mi amee nii. Euh, dina demee ne kon di nga kon kon di nga gisee di nga gisee ay avion avion yu jógee Marseille ñëw wàcc Dakar. Hmm? ma ne bu fekkoon jamono yi nga xamante ne jamonoy temps normal la di nga gis ay avion yuy wàccee yuy jógee Marseille wàcc Dakar pour Pape Diouf. waaw waaw loolu loolu loolu loolu loolu mooy lu ma la wax rek. parce que hmm. Pape Diouf quand même nit dimension moo toll noonu. Hmm. dimension moo toll oh, xare ko àjjana. amiin nañ ko ñaanal yàlla xare ko mais cofeel day des suñu xol juste à jamais. dëgg la amiin mos a fàtte man de man du ma ko mos a fàtte man. en tout cas en tout cas maa ngi lay gërëm bu baax ñaanal euh, yàlla di julli. Hmm. ñaanal yàlla. jërëjëf maa ngi lay gërëm bu baax euh, monsieur Tamsir Faye di directeur général ANPEJ. ci disponibilité bi jërëjëf. merci merci merci merci beaucoup Seydou merci. ñu aussi ñu ngi lay gërëm ci liggéey bu rafet bi ngay def. merci beaucoup ñoo ko bokk. merci beaucoup merci. yoon yoon nit ku dëddoo lu gis ngeen ay yoon yoon bu leen dañuy yeew loxo yeew tànk ngir yombalal leen ngeen mën di jot information bu wér te wóor ci anam yu mu gën a gaawee loolu tax na Sénégal Actu gën a joyantiwaat application bii di Sénégal Actu te ngeen mën ko télécharger si Google Play wala Play Store rek xibaar dootu rawati di bokk si ñu koy njëkk a am mën a ak moom en toute liberté ndax rek mooy application bu lay informer lu jëm ci wàllum économique politique santé culture sport people maanaam daal bàyyiwul dara application